pour être respecté. Ce n'est pas, pas compliqué. Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2020. Shine bright like a diamond. Salam alaikum, beaucoup yi Nous sommes leen di nuyu yéen ñëpp tey ñu ci émission découverte Capa TV Nous ci dalal suñu benn de gu am solo muy babu Diagne di professeur en mathématiques don tamit doomu yaraax cause yaraax intéressé ko lolou sa su nek mu nek ci nek tamit membre parti serviteur bu Pape jibril Fall dégg nañu sax ni jamono ji da fay guen waye lolou lepp dinañ ci waxtaan ba xam lan moy position am ci taxaway bi nga xamni ni serviteur yi ñi ngi ci lan mooy position am tamit ci différents thèmes yi nga xam ne nii ce sont des faits saillants yi nga xam ne nii en dehors de la politique comme l'immigration clandestine les inondations wala le problème l'intervention militaire de la CEDEAO am na thèmes yu bëree bëree ba daal yu ñu xam war nañ ko war a traité ak suñu gan giwu am solo gi di Babou Diagne kon monsieur Babou ñu ngi lay nuyu di la ziar nga nuyu te présenté wu. voilà merci salaamaaleykum. Je voudrais remercier beaucoup ci euh, ci invitation bi aussi une satisfaction mais aussi euh, une grande fierté parce que je l'avais dit à un de mes amis que bala maa def consommer national damay def consommé local donc cette télé quand même est une télé qui est là une réalité au niveau de la commune de anne mhm. donc pour moi il était il était nécessaire il était vraiment important que su may def sortie ma def ko d'abord ci gox bi nga xam mom la laa donc ma ngi len di remercier bu baax baax alors bala ñoo dugg aussi ci yenn mbir yi may ma rek ma nuyo mhm. déjà ma ngi nuyu sama mbokk wa yarax yëpp mhm. di nuyu déjà sama xarit mhm. muy élage élage Falilou déjà mom sax mu ngi au sein des serviteurs ci auto école am la ñuy defee émission bi mu doon école auto école bu extraordinaire moom aussi muy def liggéey bu am solo d'ailleurs sax j'avais un projet malheureusement qu'on n'a pas encore pu concrétiser c'était c'est-à-dire un serviteur un permis mm-hmm. donc ñu ngi ci doon waxtaan mais bon xam naa peut-être dans l'avenir certainement ça sera possible mm-hmm. voilà di nuyu aussi waa montagne yëpp mm-hmm. waa Ferraille waa Waloga euh, waa Kip waa Antrois vraiment di nuyu wa Anne Marie tout le monde Jibril Fall di ñaan Yalla émission bi ñi def aussi liñ fiy wax doon vraiment njëriñu askan bi parce que jàpp naa ne loolu rek am solo voilà ah kon monsieur Babou Diagne avant nga xamni dañuy dugg sur les faits politiques euh, xam nañ ni cause yarax la intéressé lool té ku wax yarax jamono ñu ñu tollu di nga wax le problème de l'immigration clandestine parce que bari na ay doomu yarax yi nga xamni ni xamuñu par signe de désespoir la xamuñu par lan la jël nañ gaal gi dem tenter ci seen sens mhm. te lu nekk risque yu bari loolu lu nekk mën lañ see fekk mhm. daanaka cinq xale yoo jël ñuy mhm. ndaw waxambaane yoo jël deux yi xëy na tànte nañu affaire bi ñi si génn àddina tamit bëri nañu loolu nan nga ko gisee ak lan moo waral problème boobu noonu di am voilà merci merci déjà pour la question moi je pense que ku wax yaraax xam ne en fait euh, le phénomène des, pirogues a déjà commencé essentiellement avec yarach yarach l'a commencé en fait. Mhm. Donc, je vais permettre de un peu de faire historique. Mhm. Parce que nous, nous avons une chance quand même. Euh, fait que le commence. Parce que le phénomène a plus de lampes. C'est vrai qu'avant 2006, certainement dans certaines localités, on a le même phénomène. Mhm mais y ngi une ampleur entre 2006 2007 voire 2008 comme ça moi je me souviens à l'époque en 2006 ou 2007 comme ça j'étais encore étudiant mhm. j'étais à l'université mhm. mais dama daan un week-end su weekend un week-end avec ak samay copains en montagne mhm. eh, ginaaw xeer ya damay jékki-jékki gis un groupe de jeunes ils yor en sac, ils nañu fils ñu ngi dem ñu ngi ñu ngi dem Europe ah, ah, sérieusement alors on se posait la question mais qu'est-ce qui se passe ko répond à la non non non dañoo délocaliser aéroport Dakar Yoff indi ko indi ko en montagne ginnaaw bu mhm. donc mu doon phénomène ba nga xam ne vraiment phénomène bu ñaaw la phénomène bu metti la. maintenant pour répondre exactement à ta à ta question moi je pense que s'il faut s'il faut nga analyser en fait le problème de l'immigration clandestine. Mhm. pour man les gens font beaucoup de séminaires. Mhm. les gens sortent beaucoup de programmes. c'est important oui. mais le plus important moi question bi nga poser c'est-à-dire le nœud du problème lan mm-hmm. lan qui wara réellement problème bi mm-hmm. gis nga pour tâter le pouls mm-hmm. pour ce problème là il faut que délu si bir, dans des localités comme Yara. c'est-à-dire il faut nga délu. ci man j'ai eu la chance d'avoir pratiquement tous mes amis qui sont partis en Europe en prenant les pirogues man sax su ko nëbbul su de mm. tout est des ma jël tout est des ma donc il faut comprendre déjà pour pouvoir analyser le phénomène euh, de l'immigration clandestine il faut que la mentalité jeune. yi lan moo di Europe déjà tu l'as dit en réalité c'est le désespoir c'est-à-dire que ngay êtes jeune êtes une localité dans besoin, ci mbir vous êtes wala sax nga am envie pour subvenir à tes besoins pour say wajur, pour en tout cas avoir une vie décente mais malheureusement n'y a pas de possibilité pour permettre une vie une vie quand même assez assez digne c'est ce qui fait que dans ngay dem tu perds toute forme de repère et li ngay gis rek moom mooy naa dem Europe quitte à ce que ma ma bàyyi sama bakkan ci ci donc man jàpp naa ne soo jëlee de localités comme Yarax essentiellement li ko gën a waral géej gi bokk na ci mhm. géej gi dafa doonoon benn forme de refuge pour ñun ñëpp man mi di wax une partie de mes études a été financier par la mer mais boobu da nga daan def bu vacances jotee nga gis jën boo napp bu mhm. vacances jotee nga am possibilité dem géej mhm. à travers ay gaalu mballaaw wala dem gaalu filaat tournée wala manam di nga am possibilité def ben activité ci géej gi mën ci génnee xaalis donc tu n'avais pas besoin ngay dem ay bitim réew voilà moi je me souviens même ce que ci kër déjà bés bo amone euh, ben mall, bu fa am jabar mhm. wa kër gi dañuy kontaan parce que xam nañ ne xaalis day dugg ci kër gi euh, jën day dugg ci kër gi ak yeneen yeneen donc man pour man c'est déjà un désespoir géej gi moo amatul jën mhm. di sou lancé film, li muy buub ci ci ci jën ci vois espèce day tu ne peux même pas imaginer donc de ce fait imagine des des des des des centaines de bateaux qui font ça tout le temps cette pression qui est mise qui est mise sur sur sur la ressource mais finalement de plus en fait au fur et à mesure ces ces ressources là vont disparaître et c'est ce qui est ce qui arrive actuellement au niveau au niveau au niveau de nos mers donc essentiellement moi je dirais que problème la manière dont on octroie les licences de pêche mhm. loolu le problème mhm. je pense que le gouvernement oui mhm. doit donner des licences de pêche mais le gouvernement doit en tout cas euh, donner ces licences de pêche là avec beaucoup de modération boum petit ci les capitaux en tout cas euh, euh, les, capitaux qu'on peut avoir à partir de ça mais ne ci aussi intérêt à bi intérêt à bi qu'on consommation locale alors il y a un petit débat les les les entreprises transformatrices. Mhm. dañuy la ressource moi je dirais que pêche artisanale. Mhm. parce que pêche dafa pêche artisanale am pêche industrielle les licences de pêche concernent essentiellement euh, la pêche industrielle mais pêche artisanale si ko dooleeloon tey dinañ mën nous en tout cas pêcher des quantités.

aussi parce que j'ai failli le faire mais en réalité comme ni c'est une question de désespoir maintenant euh, à côté de ça il y a tout le temps des personnes qui sont euphoriques nga mais le pourcentage des gens qui ont un emploi garanti qui prennent les les pirogues ak pourcentage bi nga xam ne ñii ñi nekk dans le désespoir le plus total mm. tu verras que amul comparaison amul comparaison c'est vrai que am ben, benn benn ya nga xam ne dañoo am benn business nekk ci di liggéey mënoon ko gën a fleurir mm. mënoon gën a avancer gën a gëm seen bopp dem ñu bàyyi ko fi dem gaal ñun waxuñoo ak ñooñu parce que pour man lolo erreur la mm. aussi beaucoup na ci forme gëm sa bopp c'est-à-dire aussi euh, malheureusement le la soo ci tollee da ngay dëgër bopp mhm. suñ la nee soo dee nekkul da ngay dem Espagne rek tekki mhm. les gens n'y croient pas mhm. et effectivement c'est la réalité soo demee Europe aussi tu vas te confronter à beaucoup de difficultés mais la majorité des, des, des jeunes qui prennent les pirogues sont des jeunes qui sont dans le désespoir le plus total ça moom mun naa man sama xarit yi nga xam ne wala sama mbokk yi wala sama dëkkandoo yi wala ñi ma gisoon ñu jël gaal yëpp mosuma cee gis ka nga xam ne am na un emploi garanti dem jël gaal yi de dem dem dem dem yoonam même sax au-delà de ça euh, même si vous regardez les étudiants ñi nga xam ne am nañ espoir sax peut-être que l'avenir est devant eux souvent duñ ko def souvent duñ ko def am na ñi nga xam ne nag ils sont tentés peut-être par des trucs machin mais le plus souvent ñi nga xam ne au moins am nañ yaakaar ne su peut-être mën naa jàpp ci lii mais am na ñi nga xam ne nekkuñu ci loolu te l'État doit accompagner ces gens-là l'État doit encadrer ces gens-là na leen former dimbali leen financer les jox leen liggéey bu boobaa ñun dinañ bàyyi te financement bu ñu ci def par parlo. bu ñu ci def par que ça soit des financements politiques c'est-à-dire damay ñëw fekk un groupe de jeunes ya nga xam ne saa yu ma leen soxlaa mën nañ yooxu sama ginnaaw dama leen di financer ça c'est pas bon pratiquement les jeunes qui font ça c'est des jeunes ya nga xam ne souvent amuñu business bu ñu teg man dama naan sooy financer jeune ci quartier jëlal benn jeune ba nga xam da nga ko fekk mu teg benn table bu ndaw par exemple vous votre entreprise vous êtes des jeunes vous avez mis en place une entreprise de télé. mais pourquoi après yu ndaw ba c'est petit business ou bien créer un petit emploi mais il peut entreprendre et s'en sortir sans financer ñi nga qu'ils ils sont déjà dans le milieu c'est un petit business Ils sont ba de telle sorte que c'est un business nous ñu en tout cas créer un emploi beaucoup de de plus en plus on va créer des créer des emplois vous avez parlé de désespoir da ngay gis ay jeunes yoo xamante ne dañuy dañ leen di wax jàng leen soo leen amee diplôme ngeen liggéey léegi nga gis jeunes yi ñu passé au au moins vingt ans ou dix neuf ans quinze ans dans les études après ils vont finir euh, sans emploi léegi yow lan nga xalaat ne moo mën a remédier si loolu euh, venant venant de de la gouvernance et de l'État voilà merci merci déjà pour pour pour, pour cette question alors man déjà dama naan état mu ngi jéema vraiment ñu ngi ñu ngi jéem ñu ngi def ay politique publique ñu ngi génne ay financement à travers l'ADER mais à un moment donné moi je me dis que tant que nos états tant que nos états n'ont pas encore fait en sorte de réclamer une certaine légitimité euh, une certaine souveraineté légitime duñ ci génn euh, fan yee passé dama toog ci benn télé di seetaan euh, une émission que Pape François en RDC wax wax mbir en français euh, euh, l'Afrique subirait aujourd'hui les effets délétères d'un colonialisme économique déchaîné les effets ça une personnalité aussi importante sur le plan international que l'Afrique subirait aujourd'hui les effets délétères d'une forme de colonialisme économique déchaîné Nous c'est-à-dire pour pouvoir il y a certaines choses pour pouvoir les régler il faut une certaine autonomie pour pouvoir régler ces problèmes mais ce fait qu'il y a, par exemple ce euh, développement donc pour basé aide au développement mais d'une ci parce que euh, qui qui donne par la main droite reprend par la main gauche monsieur Babou Diagne. Mhm. ba léegi monsieur Babou Diagne ci émission découverte. Je mhm. suis un responsable politique ici à Yaraax. Mhm. tamit ndaw nous avons parlé comme un premier sujet qui est l'immigration clandestine. mu indi ci ay leeral yu am solo. waaye li ci qui est am solo tamit c'est quelqu'un qui a failli tenter mhm. l'immigration ce qui veut dire que c'est mhm. quelqu'un qui connaît carrément mhm. le fond du problème effectivement il a par ailleurs traité des problèmes comme le désespoir bi nga dit ne ndaw ñi am nañ ko ndax a ñu tamit euh, euh, ressources halieutiques yi nga xam ne nii mais aussi la peste qui ne nourrit pas euh, assez son homme quoi que mm-hmm. euh, la politique gouvernementale qui tarde carrément mm-hmm. yooyu yëpp ñëw na léral ko ci façon bi nga xamni ni mm-hmm. di nga xamni ki wax li wax lu maîtriser quand on parle aussi de la mer parce que on va y rester dañuy wax euh, sur le littoral parce que daan nañu gis ni ay jamono plage yi lu yaatu won la da nga daan daan nga ci football. Mhm. daan nga ci oto mënoon na cee sax taxaw. Mhm. fu la neex daal di toog. non seulement aujourd'hui la menace. Mhm. de la pollution. ci yaraax lu ñu sonal la. waaye tamit on voit que ni il y a plus en plus nous avons nga dañuy installé wu. Mhm. mais récemment tamit sur le cas de Montagne 6. Mhm. gis nañu vu nit ko nga xam une place bi nga xam yu bari bari bëri ku nekk la nit daan jóge di fa ñëw. Mhm. benn nit bëgg ko ñëw akimo monsieur Babou lan nga ñuy def comme ay leeral ci cas littoral bi. mais surtout sur le cas particulier de Montagne 6 qui vous concerne au plus au plus premier degré. merci merci merci euh, pour cette question. c'est une question qui est extrêmement importante parce que quand même a une question mm-hmm. plus particulièrement euh, montagne 6 fa nga ma vie je l'ai fait à montagne 6 mu vraiment événement mm-hmm. parce que ben promoteur mm-hmm. euh, un certain Bailaon en tout cas am doole forcer nangu en tout cas une partie de notre plage. Mm-hmm. muy ah, dañ koy woy ginnaaw xayre lañ koy woy pour ñu mm-hmm. dëkk Yaraax. Mm-hmm. te japp na ne plage bobu dañ koy wax montagne mais vous l'avez dit en réalité c'est c'est pas une plage qui appartient uniquement à montagne. c'est une en fait plage la ba nga xamné pratiquement ñepp fay sangoo parce que suñu littoral bi soy xol ñaari coin mo fi desoon fa nga xamné réellement mën nga fa ñëw petit camp football sango Mm-hmm. moom moy page ba mm-hmm. fi lañ fi amone mm-hmm. ak benen bi montagne yi ci dess yëpp ay ay daggitu plage la dan doon fi soko ko soko euh, soo euh, ci quai bi ba ni ngay passer ferraille ba dugg montagne ba ci xeer ya lo fa benn plage bu tàlli amul ñaari plage yo lañ am mais imagine tay ñun yara su fekkee ni ñun on est on est on est fermé d'un côté par la route nationale avec avec ay camion yu dul jeex benen côté bi ñu am le port autonome ban sortie le lañ lañ lañ amati à Yarax à part sortie bi jëm ci wetu géej bobu rek lañ am man je pense que so ñëwee bëgg def ben miir mooy tëj nga Yarax définitivement mhm. benen bi aussi man je pense que aussi à l'heure où dans le monde entier mhm. les gens essaient de relever le défi écologique mhm. et environnemental ñun ñuy ñëw bëgg yak cet écosystème là pour pour l'intérêt je sais pas d'une tierce personne pour man gouvernement bi munu normalement war malheureusement ñun on a été surpris à Yarax Je bi pas là dafa fekk pour des raisons professionnelles fekk Yarax bi mu ba am ba commencé def installation population bi commencé di euh, am vraiment des gens ay ay jambar yu qui ci kanam le combat je peux citer mais so jëlé ku jël ku mel ni grand Maudo, Maudo Maodo bu mm. ah, Montagne 6 nga jël ni euh, Jibi Jibi Jibi Jibi job. mo mm. nek président ASC Montagne 6 wala nga le ni ku mel ni Nous, mm. avec des femmes des des des des des jeunes des des des vieillards nous avons ci combat bi pour bañ ñu la plage Donc, mm-hmm. donc man pour man gouvernement bi que ça soit la mairie ou même le gouvernement pour des défis écologiques waru ci won dem té man japp naa ne euh, comme Mbacké sék da koy wax lu lu bari té il a parfaitement raison moi je pense que suñu xooloon impact environnemental bi ak social bi bi muy am kenn du ko fa xalat maintenant heureusement il y a il y a collectif bi moy collectif pour la défense du littoral ñom aussi vraiment ñu ngi remercier ñi ci nek ñëpp mm-hmm. té vraiment man damay lancer un appel sax balaa ma mm-hmm. continuer que Yaraax gëna a ces fils là mm-hmm. qui sont souvent au front pour des raisons politique souvent dañ leen di taxé ci yu bari te bëss bu combat amé rek mm-hmm. ñom ñu ngi ci kanam man japp na ne yarax war nañ politiquer man je le dis tout le temps je fais de la politique maintenant j'ai jamais été politique mais je suis dans le champ politique mm-hmm. mais faut naa politiquer fu mu nekk ba mu des yarax nekkal APR nekkal PASTEF nekkal serviteur nekkal fu la neex yow gënal pour commune bi rek ñu jappalé la nga taxaw donc ces fils là vraiment c'est des gens qu'on qu'on qu'on doit vraiment aider qu'on doit plus écouter mais jàpp comme ni ma dit, ne serait-ce que pour le défi euh, de de de de de de l'écologie de l'environnement le gouvernement bi en tout cas balaa moo jublu ci mbir boobu mu été ko train de se terminer heureusement malgré le malgré chantage qu'il a def malgré euh, malgré xëpp yi nga parce que vraiment jàpp ci ay jeunes sont ci ay lacrymogènes mais finalement les gens se sont battus mm-hmm. jusqu'à ce que Wadi arrête pour l'instant donc instant bi may wax ak yow c'est grâce à l'intervention vraiment de beaucoup de députés Le député maire Babacar Mbeng, bokon na ci ak euh, Moussa Diakhaté ak d'autres députés Thierno Alsan Sall aussi ñëw na fi j'avais j'avais interpellé le député Pape Djibril Fall malheureusement il n'est pas venu dans ça peut-être que c'est son agenda qui était pris mais député yi ci yi ci yi ci vraiment waa Yarax am nañu cant ba nga xam ne voilà xam nañu fi ñuy commencé mais xamuñu fi muy fi muy yem mhm. léegi nag ñuy alerter ñuy alerter parce que le gars a arrêté les travaux pour l'instant mais nekk na dossier ba nga xam ne ba mu ko constitué bañ ko ko joxee ba tey dossier bi dafa obsolète donc il se pourrait mu relancer waat le dossier donc ce qui veut dire que ba tey mu les travaux là mën na ñëwaat donc ñu ngi lancer un appel autorité bo xam mu ngi Sénégal ou bien à l'international mu mën ñu jàppale mu mën wa waa wa montagne pour que waji ji bu ñëwaaté du jël loolu nga xam ne ñëpp ko bokk bu ko def moomeelu boppam ñu dimbalañ ji ba loolu du loolu bu mu am. Euh, si littoral bi ngay wax ni mais man damay dem toucher beneen côté parce que euh, ay temps temps yi passé dañuy gis euh, ñuy génne ay photo

ak état bi lan la si mën def. waaw baie de bi je pense que projet boobu Yagna, Yagna effectivement mooy la dépollution de la baie de Anne. nit vraiment def nañ ci ay rencontres yu finalement sax euh, demande nañu ba projet bi war recommencer depuis 2017 je pense que Serigne Mbaye Thiam ñëwoon na fi def lancement des travaux bon bi mu commencé nak dañu jékki-jékki ñun ñëpp waye rax yëpp jékki-jékki gis mu ñu arrêter le projet bof honnêtement, je ne maîtrise pas trop le dossier parce que je n'étais pas carrément dedans. Mais paraît-il, je dis bien, paraît-il que l'entreprise bi nga peut-être à amul capacité permettre de les travaux comme il faut nous donne aussi une situation très regrettable très regrettable parce que aussi il faut le dire quand vous parlez de la baie tu as bien fait de souligner que ça faisait partie des, en tout cas des baies ou bien des plages les plus belles au monde moi je me souviens euh, quelques photos à travers des cartes postales des fois ñu wan le baie est-ce que réellement un la moi je suis plus âgé que vous je me souviens nous aussi bi gën primaire déjà au niveau de la baie cocotier yi desoon na fi mhm. amoon na cocotier man je me souviens dañ hier que sax di dagg mais baie bi li subit une pression pression faut briller c'est-à-dire tay, dañoo foog ne population Hann bel rek ñom kessé ñoy dem di déverser des mais non c'est pas uniquement la population de Hann bel regarde combien ñaata canal lañu def ñuy déverser wu fi. que soo ko montagne pas montagne sax mais fi ñu jëlee ginnaaw xeere wetu blouma canal bi joggé Seras lépp fi lay déverser wu foofu je me souviens euh, soo daan fay pour soo leen daan dóor dàqe ci bir géej soo nuuroo dem parce en fait do do rire parce que dañ lay gis tellement la la mer était était était était claire mais tay pour nga sangou fa c'est un problème man pour ma sangou par exemple euh, ginaaw xeer ya il faut que ma fay ba biir géej soko gis lu clair li nek ci place bi canal bi jóge Seras da ko yàq loolu moo nekkoon suñu problème paré guñu di régler problème am benen canal moy canal bi nga xamné dañ ko branché mu dem côté Dalifort day déverser foofu gis nga canal bi nga xamné mu ngi fii euh, mu côté fini ci ci marinage bi gis nga fofu tamit li muy donc man pour man tay on incrimine certainement la la population a une responsabilité sur ça mais la grande responsabilité moy canal yoy nga xam dañ ko dañ ko branché muy déversé wu ci maintenant il y a le projet qui est là il paraît que dafa nek en attente mais dañuy ñaan encore gouvernement bi diko ñaax mu dem vers une dépollution euh, de la baie de Hann waaye dañuy ñëw ci un problème bi nga xam ne de la concerner au premier chef mooy dañoo dégg dañoo dégg yow nak yaa ñu war a ndax dañoo gissone sa engagement sur les serviteurs le parti de Pape Djibril Fall ngir xam da ngeen ko taxawal pour servir le Sénégal ñu dégg ni monsieur Diagne kat da ci nekkoon té nekkatu ci waye bobu légui tamit amuñu luñu ñu leer waaye nag comme yaa fi tok liñ bëgg bu soobé yalla ñu ko ci am monsieur Diagne ndax monsieur Diagne ba légui mi ngi parce euh, que mi ngi mi ngi mi ngi les serviteurs wala nekkatu fa wa merci merci merci vraiment pour cette question là je pense que euh, wa Yarax surtout wa Hann Bel-Air bëri na ñuy posé wu cette question là mm-hmm. parce que effectivement euh barki demb je crois barki demb dama publier que ne mm-hmm. je prends retrait du parti les serviteurs ça veut dire que dama ci génn wala je prends une pause xaw mm-hmm. la ko mënu a mais pour moi en réalité jàppoon ça, ça serait un non événement honnêtement euh, engouement m'a suscité après man ça m'a tellement surpris et là je ci remercier déjà les serviteurs honnêtement donc marque de considération bi honnêtement je savais même pas que les euh, serviteurs ñu ma à à ce point là mm-hmm. serviteur fu mu mënta nekk fi may wax yow dama ko def ci mais gars yi ñu ngi envoyé message bi en réalité dama nekk ci parti bi man ak beaucoup de responsables ñu nekk di def liggéey bu am solo waaw derrière le président Papa jibril Fall mais jàpp naa dans toute organisation day am souvent un système de fonctionnement et man jàpp naa dans le système de fonctionnement li ëpp solo moom mooy doon la communication que ce soit la communication interne ou bien la communication externe. Mais je vais, je vais m'arrêter sur la communication interne. C'est-à-dire, pour Mantaï, nous sommes un parti très jeune. Mais même si nous sommes un parti très jeune, il va de soi que au fur et à mesure qu'on va avancer, problèmes mais on va avancer par des propositions parce que le président Pape c'est la ñuy dit. wax. Mhm. man bi serviteur euh, le président Pape avait vraiment appelé beaucoup de gens def ay mais man deful ak man rencontre qu'un woowu Je man maay wëral sama serviteur. parce que en réalité Pape il est li le leader qu'il est. quand je l'ai ci moom man dama jàppoon ne qui moo mën la population sénégalaise mais plus particulièrement la population de de de donc loolu mo taxone man vraiment ma ñëw top ci ginaaw top ci nak engagé wu. Mm. engagement ba nga xamné sax finalement man ñi ma nekkaloon souvent dañ ma doon wax naan jaañ fay doucement fay ceci mais man je voyais pas ça. parce que dama naan mbir man malheureusement y a un ami c'est ce qu'il me dit tout le temps jaañ tu es extrémiste so ci nek da ci nek à 100 pour cent ci nekul da ci nek légui nak dans le parti dafa am dañoo dañoo am ay problèmes de fonctionnement légui problème de fonctionnement su amé dafay laaj waxtaan mhm. c'est-à-dire nit ki su amé ben ben ben ben ben fu mu mën exprimer woo xalaatam mhm. mu sentir ne deglu nañ ko su fekkee ne wax na dëgg peut-être ñu jël ko en compte su fekkee ne lamu wax dafa safano ñu ñu ñu tek ko de côté je pense que koku dina meuna sentir bopom ci parti bi dina sentir bopom ci liguey bi mais su fekkee ne yow par exemple il y a des problèmes internes dans un parti comme dans tous les partis hein. mhm. il y a un problème interne nit ni di ci wax di pousse di pousse di pousse mais au moment où vous, vous, décriez au moment où vous faites des propositions les gens continuent sur cette même lancée là mm-hmm. mais finalement tu te dis que ni ça sera un problème qui ne sera jamais résolu et il indi a indi phénomène grave au sein du parti c'est-à-dire les gens maintenant dafa trois options maintenant là am man mm-hmm. première option je suis responsable bon on ne m'écoute pas wax nii laa ko xalaatee et cetera et cetera je ne fais plus rien su yàqoo après ñu xam ne ñun ñëpp la man pour man ni ko def nak, je les blâme pas mais man pour man du non, du engagement boobu la am ci parti bi du contrat boobu la signé ak ak le président Pape man suma ma ci nekkee dama ciy nekk à fond di ci def sama doole di ci def sama khalat, di ci def sama alal man loolu la gëm léegi nak, su fekkee ne yow tay, benen, benen, benen, benen, beneen option bi mom moy nga tok ci parti bi manam manam manam maanaam waxatuloo dara tok nopi moy boobu mooy première option bi toog waxuloo dara mi keur affaire bi yàqu nga xamne non la man loolu c'est pas mon option benen bi moy nga nek ci parti bi di casse fo toll non du lii du tu deviens bavard da ngay dem ba da ngay sof nit ñi mhm. man je ne peux pas être comme ça mënuma tout le temps di wax ci ben affaire dama koy wax fa ma ko war a ña gis si j'avais la possibilité aujourd'hui de parler au président je lui parlerais directement honnêtement si j'avais su ma ko mënoon woo ko jot ko ne ko président li ak li ak li ak li, mais dama koy dama koy wo jot ko troisième option bi mom moy nag vraiment so nekkee ci liguey, bu mënuloo tok té sa bop, di lo liguey bi mënuloo aussi nekk ci parti bi di xeex di di di troubler nit ñi di len di len di len vraiment déconcentrer je retiré tout. parce que tamit man nekuma un malheureusement bon heureusement je sais pas malheureusement un serviteur lambda su fekkoon dama nek serviteur ba nga xamné amulo ben responsabilité ma xamné ne tok sama coin sama quand je me vois plus tellement dans le truc mais dama un serviteur ba nga une par exemple c'est moi qui coordonnais le mouvement des enseignants au niveau national donc enseignants ont deux mois am deux mois pour pouvoir faire, faire, faire, faire, en tout cas, pour pouvoir dérouler leur plan d'action politique. Donc, moi, je n'ai pas le droit de croiser les, les, bras. Soit, dama ciy ou wala ma def deux pas bàyyi continuer donc moi j'ai préféré en tout cas sortir un peu pour voir est-ce que réellement nous dinañ en tout cas un oreille un oreille favorable par rapport à ñun par rapport à, en tout cas serviteurs du BRI li nga xam ne moom lañ teg sur la table pour que le parti pour que le parti puisse puisse avancer mais je vous dis ah moi je l'ai fait je l'ai je l'ai fait à contre-cœur te bëri na tey am na ay c'est vrai que j'ai écouté une émission de de Abdou Kane déglu naa benn émission sunu benn euh, naataango xam naa ne temps bi xoj nañu mais da ngeen may may rek sunu benn naataango keroog mu dem DTV euh, ñaari naataango sax ñoo fa dem kenn ki il est sorti bien avant mon mooy euh, Sanambay di wax vraiment ba dal ci serviteur. mais il parle mal malgré lui parce que quand il ku ko xam xamne ne ku fonk serviteur la fa bëgg serviteur moi je me souviens je me souviens euh, d'une petite histoire jour bi Pape me fait place de l'obélisque ñu attaqué Pape bi daf ma wo téléphone di di jooy ci téléphone bi di joy comme xalé na ma boy on a attaqué ñu ngi ray pas fo nek répliquer dañu daw gaaw té je sais que né ce jour là su fa demoon dina dina dina dina dina mëna jaral nako bakanam benen beneen naataango bi nekkoon ci plateau bi muy Abdou kan ñukoy ñukoy nuyu diko ziar bu baax baax de passage kérok tëni na fa ay ay propos yu am solo man li ma ci retenir rek moy que né au moment où peut-être les gens sont en il y a certains qui sortent il y a d'autres qui entrent ça moom vraiment c'est c'est important mais dama naan ni entre ni sortie sont importants il faut pas se il faut pas dans un parti politique Do, do bàyyi xel dougrek, dugg rek mais da ngay bàyyi xel Mais man si j'étais si j'étais à la place du président ku ma dégg dit de nga dina la haut téléphone du ma am intermédiaire dina la haut téléphone nela la lan moo xew lan moo tax nga si c'est un problème qui est qui est qui est qui est susceptible d'être réglé ma règle ko si n'est pas susceptible d'être réglé ma bàyyi Je man que le président. le président problème bu régler réglé directement dans le parti sera un avancement du parti man loolu laa mais il ñoo doon benn parti ba malheureusement dès que tu sors on te dit que yow da nga pour un tour Tu es pour des calculs Non, non n'est pas ça moi je dis que ce n'est c'est pas tout le monde peut-être ñeneen sont dans des calculs politiques mais am na ñi nga xam ont image balaa ñoo ñëw seeni serviteur la ñu defar seen bopp moom moo tax ba ñu duggee serviteur mun a indi ay mbooloo ci serviteur donc man jàpp naa ne euh, tey li war da man loolu dama ci interpeller directement le président Papa Djibril Fall Liko war tay, moom mooy li xew ci parti bi yëpp ak fu ko déggee rek bu mu bu mu am problème pour jël téléphone am wo nitki, ki waxtaan ak man je pense que le problème bu mu régler rek c'est un problème de moins et serviteurs suñu sentiré cette proximité avec leur leader dina leen gën a permettre ñu gën sawar ci liggéey bi fi may terminer rek Mon euh, euh sama retrait ci parti bi c'est pas lié à des problèmes crypto personnels vraiment aw ma problème ak kenn man dama nan su fekkoon ay nit rek su fekkoon ay nit rek man dama am problème ci parti bi parce que ñi ñi top ci en Pape jibril Fall dañ ma dérouler le tapis rouge il ma problème ak nit yàlla xam na ko billaahi keroog ba may génn jour bi may lancé message j'étais dans une situation un peu compliquée parce que le coordonnateur national xam sais temps bi na mais may leen ma rek c'est cette cette partie est extrêmement importante pour moi mm-hmm. euh, le coordonnateur national ma ce jour là je l'ai jamais appelé mon frère parce que beaucoup de gens terme ya nga xam un koy woo nit ñi sax day donc, je suis pour apprendre à am mais ce jour-là je l'ai appelé mon frère et effectivement nous sommes ay frères serviteurs ñun frères et sœurs parce que am nañu climat social peut-être dina am quelques tensions mais suñu tassé suñu ay lonkante a mujj rek may wax ak yow dama sœur Fatou Fatou je vais citer son nom rek mu le président Pape et tout comme quoi que je resterai toujours serviteur et Yoyu, c'est vraiment très touchant mais pour dire que man mon problème ak kenn parti bi ma demain, euh, un problème urgent war a voyager pour pour en tout cas des raisons personnelles mu pour des travaux qu'on devait faire au niveau du siège travaux qui nga commencé et qui concernent le projet de société et le programme du du parti avant Bobo, son secrétaire mhm. c'était le samedi passé je mhm. ne pas parce que je yaram dama dem ba en réalité Je suis dama ne ah, vraiment tu perds ton temps mais en fait sawartuloo ci liggéey bi deuxième fois bi ma ma je un message dama ne ping pong continuer parce que je je suis ma sincèrement

par exemple il y a un petit problème nga jël kenn waxtaan ak moom kooku dem ko non vous discutez avec tout le monde c'est loolu dama ci bo le président Papa Djibril Fall bu baax a baax a ne a na gën a déglu na gën a waxtaan na jaral xamna né son agenda est trop chargé son agenda est trop chargé mais des fois na jël téléphone am rek su amé temps bu ndaw dégg de peut-être amna ben benn couac fenn. avec un responsable Ne jël téléphone am lay mën amé les les versions parce que tamit bés bo déggee né Diagne def na dara nga wuti ay versions feneen mun nga am des versions erronées déglul Diagne déglul ñeneen ñi ça va te permettre d'avoir une une une une une version beaucoup plus globale et à partir de là di nga mën jël en tout cas la meilleure décision la meilleure décision possible mm-hmm. donc ñu ngi ñaan vraiment que tous ces problèmes soient résolus dans le parti et que tous les serviteurs, tous les, tous, tous les serviteurs qui ont, en tout cas, le parti serviteur dans leur cœur, mouna a parti parce qu'on a besoin de tout le monde on a besoin de tout le monde bon un responsable ne doit pas parler comme ça un responsable mm-hmm. responsable doivent avoir un discours rassemblé gis nga keroog ba may le mouvement des enseignants. ñu ngi may ah, je je suis devant les caméras euh, groupe bi dafa am agitation mais non seulement dama dugg leen ñi nga s'il vous plaît ñi nga xam ne mun continuer le travail avec le président Pape nañu toog ba démb ba may génn dama leen ne ngir yàlla bu leen fexe mu groupe bi groupe bi groupe bi tasaaroo ña nga xam aussi ba liggéey bi commencé ñun ñoko ko démarré ndoo ku ci nek woo naa la ne la fexal ba liggéey bi ñu commencé ba egsi fi mu pëccaxoo parce que bama ma rek gis naa maintenant des convoitises peut-être j'étais devant ñen ñi bloqué mais bama ma ci groupe bi rek gis naa déjà ña nga xam ne commencé nañu di njëkkanteeg et cetera té man le problème n'est pas là gis nga l'essence des enseignants peut-être xamna né ma daawar naru woon nangu mais mo naron don essence bi njëkk def AG parce que oui le président m'avait pressenti dans ce projet-là, dans ce poste. Pressentir, non. je n'ai pas été eh, officiellement euh, installé comme coordinateur national. Le président me pressentir, non. Moi, je sais que nous, nous, parti, nous savons mais dama si nous ñu organisation def yëpp ma ñaan président mu may ma ñu def AG su professeur yëpp d' accord ne Diagne le mouvement foofu dinaa am une certaine légitimité pour pouvoir pour pouvoir euh, en tout cas diriger le mouvement donc en grosso modo vraiment c'était ça le problème donc le président président vraiment xoolal sa que ñëpp képp ak fu problème boo dégg s'il vous plaît dama la koy ñaan rek wut ay intermédiaire J'ai le téléphone nga adressé directement à lui bu boobaa di en tout cas une large une large une large connaissance de la situation et là ça pourra te permettre de prendre la bonne décision

waaye quelques décision terminé ici l'émission découverte qui a été très enrichissante par les questions qui ont été posées mais aussi par les réponses qui ont été données merci beaucoup chers amis internautes. ce n'est pas compliqué. Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de mai. Shine bright like a diamond.